état bi war na leen mën a woo parce que am na sax lu ni mel am na hôpital principal tey jii tamit sa puy ñu ngi koy gis ñu ngi manifester indemnité de logement lañ ci kii fële la plupart du temps dañoo jàpp ñenn ñoo xam ne ne dañ leen joxoon indemnité bàyyi ñeneen ñi mu doon genre par parloo boo xam ne ne ñoom bëgguñu ko nangu lu ñu bëgg mooy nañ indemnité de logement muy principal aussi xaw ma ndax mujj nañ leen jox mbir bi mujj na rigué ci suuf mais ñi hôpital bi tamit xam naa ne li ñuy réclamer mooy indemnité mais est-ce que hôpital bi tamit am na koppar goo xam ne ni mën na leen ko indemniser loolu nag mi ngoog Léopold Tamba benn ndaje ngi nii muy ndaje bi nga xam ne dañuy waxtaane enjeu efficacité énergétique bi nga xam ne agence euh, pour l'économie et la l'énergie euh, ADIE moom moo ko organisé ak musée civilisation noire fi jëm ci wàllu incivisme waxtaane nañu ko fa waaye itam abordé nañu ci boobu lekk euh, ci invitation wala sax ci anam gi ñu invité ay étudiants ci lu jëm ci wàllu civilisé itam ci jëfin wala jëfandikoo gi ñu war jëfandikoo ko lu jëm ci wàllug ngir rek gën a mën a wàññi sunu ay consommation ak gaz à effet de serre yi boobu la Cheikh moo ñu fa teewaloon. mooy galerie de l'incivisme dañoo xalaat ni dëkk réew bu développement lii di incivisme dañ ko war a combattre bërëb boo xam ni dañ kenn waru ko def kenn waru ko jëfandikoo ngir nit ñi mën a am euh, comportement yi gën bés la bu noo jagleel ci naka la ñuy jëfandikoo énergie war a xalaat ni am nañ ay mbokk sénégalais yoo xamante ni ñi ngi ci àll bi te énergie boobu pour ñoom ñu mën a aspirer développement li ko mën a indi mooy ñu changer comportement yi ni ñuy utiliser énergie fexe ba di ko utiliser ci anam yoo xamante ni duñ ko yàq projet écologique efficace taxawal nañ ko. programme boo xamante ni day attaqué bâtiment wu état bi mi ngi toll ci juróom fukki milliards mais ñu fexe ba lépp li nga xamante ni moom moo fa xamante ni day consommer énergie ñu daal di ko changer def fa technologie yoo xamante ni véritablement xanal énergie. musée des civilisations noires lëkkaloo ak AME ñu étudiants yi ñaax leen ci naka la ñu mën a wàññee yàqum énergie ci anam ñu wax ci leneen soxal xibaar yi Léopold Tamba roi du Maroc xaar nañu ko ni fii ci Dakar ngir wisitu uh, ko xarito ak uh, liggéey itam ndax uh, ba ñëw fii moom ah, xëy na ñàkk ñu amal ci ak liggéey bu am solo moo président la ci yenn ci ay poñ waaye nag ab prox ndoolu la président la République Mohamed Six ñu signé faf ci ay accord yu bari bari jëm ci wàllu coopération ONG Horizon Sans Frontières mi ñu woo itam dirigeant yi nga xam ne euh, euh, dirigeant yooyu ngànk ñaarik euh, ndaje yi ni mel ci initié kenn sur les migrants xam ngeen ne lu jëm ci wàllu mbëkk mi Maroc dëkk pàcc wu am solo Boubacar Seye nee na am na ci yaakaar te it wooteem googe mi ngi koy dégg ñu teewlu ko une terre de transit pour euh, doomu Afrique yi ñii ñu ngi ci désert bi ñii ñu ngi fexe ñu ñu jëlee ga jàpp ni cette visite du roi Mohamed VI dafa nekk pour ñun une occasion d'inviter le roi mu relancer l'initiative africaine sur les migrations internationales 2022 contexte nee na plus de quatorze mille Afrique de façon illégale mënuma la wax nag ñi ci dee ñëpp ma wax ni toute l'Afrique est endeuillée roi bi bi nga xam ne ñun dañu jàpp mooy il est le leader naturel pour relancer la gélèse du triptyque immigration paix et sécurité kon tey ñu ci ñaanaat le roi mu convoqué rapidement une conférence africaine solo suuf euh, euh, ndaje yi Léopold lan lañ ci mën a jàpp déplacement wu ko roi Mohamed VI fii ci Sénégal war na mën euh, kon xaati amal amal yeneen séance de travail ak njiitu réew mi ngir ñaari réew yi seen parce que dafa bëri ay doomu Sénégal yu bëri yoo xam ni ci mbëkkëf ñi dañuy bëgg a dem ñu ci bëri nag Maroc la ñuy jare du temps dañuy am problème pour indi boo xam ne ne traverser li nga xam ne la Méditerranée hmm. foofu nag day métti te marocain yi tamit bëgg nañu sàmm seeni nekkin hmm. la plupart du temps dañoo bëgg ñi nga xam ne ne dañ fay ñëw ne ni yu yu yu mucc mucc ayib yoo xam ne ne duñ leen mën a delloo si ñu ñëwee de ba foofu ñu yem fa amuñu fa liggéey mënuñu dara parce que amul dara fu ñu jàpp donc loolu lay Maroc du ñëw xam naa certainement pour négocier ak président de la République parce que Sénégal tamit moom euh, buur bi papam xaritu Senghor la woon donc Sénégal fa ay relation yoo xam ne ni yu jege jege jege ak Maroc donc xam naa ci loolu lay tourner mais aussi ci affaire wu euh, jënd bi ak jaay bi ak ni ñuy économiquement ni ñuy seet pour dimbali Sénégal aussi. mi ngook euh, ci jamono jooju li ak toogaay ñaxtu la ñu daal di nemmeeku ci yenn ca askan wa yeewoo ci village ba bëgg tudd Tamba Nanding ak Tamba ak Tamba Nab tam Badiary di ay village yi nga xam ne ñu ngi ci commune bu euh, Bambali ñoom nag li ñuy laajte du leen électrification seen gox ñu andi leen fa courant waaye tam services sociaux de base yi côté yitte woon nañu ko euh, jamono ji ndax ñoom ci seen bopp euh, bëgg nañu yokk ci seen ki ñu ci interpellé nag du kenn ko dul njiitu réew mi moom président de la République ci mu ba ndax xam ngeen ne moom président de la République war naa dem foofee ci Sédhiou ñu teelu ci Ibrahima ji Mananding Tambanaba ak Badiari nekk nañu ay dëkk yu nekk ci xol yi fu courant tumuranke wane nañu seeni naqar si toogaanu ñaxtu bu ñu doon amal ci Sadio Sané yoroon seeni kaddu. ñun daal li suñu tànk lëndëm bi moo ñu sax ñun amuñu courant di leen wan ni ñun dunduñu dañoo bëgg ñu ñi tam ñu mën a xam ni ci réew mi lañ bokk suñu portable tam buñ ko bëggee sa après dañuy dem noonu tamit yóbbu ko séeje dem dem charger foofu wala su guddi jote suñu xale yi waroon nañoo jël seen leçon ñi lire mais duñu mën a jàng lampe bi ñu am lampe bi moom xam nga ne moom mënul jàppale xale kii di honorable député Ayib Daffé ñëwoon na wàllu ci leen te dañu gis ni euh, région de Sédhiou dafa tardé trop ci wàllum courant parce que euh, au niveau national bu ñu laajee assemblée nationale ministre de l'énergie bu ñu ko interpellé ci problème boobu daf ñu ne Sédhiou est à 30 pour cent d'électrification rurale te ñëpp xam nañu les chiffres au niveau national moyenne nationale bi 58 pour cent donc Sédhiou dafa ni mom presque moo nekk ndaare. askanu Tambana Ba Tambana Nding ak Bajaari yoroon sagar yu xonk ñoo ngi ñaan njiitu réew mi mu jox leen courant te tabaxal leen ay jumtuwaay. mi ngoog loo xanaa de lu ñuy laaj lu légitime la ci gox bu nga xam ne commune la euh, te it euh, à l'image de des autres communes war nu mën a am ay jumtukaay yi ñu leen mën a permettre ñu ngooy si ngir aspirer au développement. waaw parce que bu euh, Sadio Mané commencé tabax stade bi ak tabax lycée mu def góorgóorlu. am loo xam ne ne tabax na infrastructure donc dama jàpp ne gouvernement bi tamit bu gisee doomam ab doomu am réew boo xam ne ne nii lay comporté woo ak li nga xam ne ne fu mu juddoo donc dañ ko mun a euh, fu mu ne nii dañ ko mun a sax tàccul parce que seetaat encore lan lañ ko mun a tabaxal lañ ko mun a taxal askan bi wax na ko mooy maanaam euh, dañoo soxla électricité parce que tamit village la boo xam ne ne tey jii bu njëkk ba mel lu noonu mais ak Sadio Mané am na loo xam ne ne ay xital yu rafet yoo xam ne ne tabax na ko ci mim réew donc loolu nag euh, li ñuy réclamer mooy euh, électricité et je crois que électricité mënta doon loo xam ne lu difficile ci nguur gi peut-être que am na yeneen échéance mais peut-être que euh, mën naa tamit nguur gi d'un moment à l'autre mu xalaat waa Sédhiou ñëw defal leen courant parce que defe naa ni képp nekk ci Sénégal li ngay laaj mooy électricité parce que moo ci gën a am solo jërëjëf Léopold Tamba mbokk yi kon ñu tàbbi ci seen xalaat ñu ñu koy weddee muy démocratie Sénégal amatul démocratie ndax démocratie mooy saña wax wax sañ noppi noppi loolu mooy démocratie mais démocratie boo xamante ne ni kumba am ndey kumba amut ndey la te loolu li ko fi indi mooy Macky Sall ak euh, régime am ndax Macky Sall jiwu ñu la woon lii Macky Sall du lii nga nu waxoon ba tax ñu lay jox sunu réew Macky Sall du lii nga wane woon itam ba tax ñu di la jox sunu réew ana yar ak teggin bi nga wane woon 2012 ana ragal ak xupp gi nga xamante ne nii xuppoo nañ la ko ba ñu xeexle la ak déy yi nga xam ne déyoon nga ñu ko keroog bi nga jël xeer bi di yorub sàkku ceeb nañu nañ leen dem man ànd naa ci te ñi nga xamante ne nii ñoo nekkoon ci danger man ci laa bokk te Macky Sall lu waay waxadi waxadi waxadi waxadi li biir di yëg borom biir bi mën na ko xam na ko te mais dafa am benn affaire bu ma remarqué boo xamante ne si vraiment ça m'a touché mooy recul bi nga xamante ni si actuellement ni Sénégal daf ko reculer man moo ma tax di wax ndaxte mënuñu concevoir ñu nekk ci vingt et unième siècle ñu ne budget Sénégal na ci ay